mais boo amul trabaxa foo jëm wala bàyyi dañ may bëgg ah xoolal ma ndeysaan dama champion baa ngoog ndeysaan Prince Ngok Baldo ngoog Baldo nag maa bàyyi ne Baldo Baldo borom ndam lu rëy li waaw waaw yi baax bu baax waaw kontaan bu baax rek booy Dakar bu mu la jël xanaa xamuloo woon non non xam nga xam nga ñoom dañuy umpale lu bëri waaw waaw dëgg la danga musul adversaire waaw buy bëree adversaire français la. waaw loolu da nekk lu ko jaaxal. dëgg la waaw bëggoon naa ñu jëflante bëri tuuti wure. waaw mais loolu la yàlla dogal. dëgg la waaw ma noppal ko rek. yow door mu daanu bi xalaatoo ko de. ak ah, kay. ah déedéet ah, ah, man maa xool ba door kay xam naa mooy door. laa ilaaha illallaah. waaw lambaatu ma de damaa dama ko xool. mais lu tax nanguwul bi. non man loolu laa bëggoon sax. waaw bëre. man dafa ne signal bi moom moo waaw loolu moo tax. nga ñëw ci victoire Waalo. waaw daan booy Dakar. waaw Sénégalais li ñu xaar yow fan ngay man la dëgër esaay nii nii bu ma mayee sax bu mayul sax loolu ma bëre damay toogaat comme ni ma defoon xaar. déedéet waaye ndax may bëree si Maam Ngor Diouf laa jógee woon. waaw Maam Ngor kilo 130 kilos. dëgg la naata. 2 mètres 15. waaw tey fu waaw il est temps pour si si pungal yi. Gris 2 waaw. su ma sunu combat Sénégal moo ko bëgg. waaw du man maa ko saaku. ndax deful lu ma deful si làmb. dëgg la waaw comprendre nga. raw ma si palma raw ma si dara daan daan ay ay samay morom laa daan. wallaay waaw te moom ma ay mag la fi daan. dëgg la voilà noonu waaw sonn si def ci la. Ah, ah. waaw yooyu combat yi. yooyu mooy combat yi ah, parce que dama bëgg combat bu saf. combat bu neex. fan nga góor a soog. waaw non lu tax nga lu tax bëggoo góor. non non limal nii la tegee. waaw. ah. Gris 2 Alioune Seye 2. ñooñu baax na. ñoom ngay xool. waaw ñaar ñoo da ngaa bëgg jëlaat sa place si waaw waaw. parce que ñi may bëral nii waaw wax dëgg fa ne yàlla waruma bëri ñoom sax. dëgg la waaw. waruma bëri laa maa ak ñoom sax. laa mu boole wala ak ñoom. dëgg la parce que man boo jëlee seen avance si man dara. ah moo tax. waaw ah. ah, moo tax dafa motivé rek. bu mag laa nga. voilà ñëw fekk samay booy samay rat comprendre nga ànd ak liggéey bi neex. Ah. comprendre nga ñu mel ni presse ñu booy waranga xam nga Baye Sall waaw xam ay booy laa fa fekk ay xale. daanaka man maa leen mag man maa seen mag. dëgg la comprendre nga kon nag fierté la quoi. fierté la man nekk ak ñoom parce que bu ma ñoom ñëppay bàyyi seen idée comprendre nga xam nga tey bu bër boo xamante ne amaana. fayuma fayuma lu ma jënd lu ma ñëw si làmb ji ki moom bés daf maa fay lu ma jënd te mu nekk sama booy nekk sama xarit bam daan kon bu xewlee dam dañ koy ñëwal mu nekk si combat bu koy ubbil ay bunt moo jokkeel waaw mbër boo xam ne moo ëpp expérience si wàllu làmb genre mbër yooyu nan nga war a bëree ak ñoom non soo ma ne moo ko ëpp expérience sax. waaw non non. waaw parce que ñoom ñaar cinquante cinquante la. cinquante cinquante bul fàtte nag Prince nekkul nekkul mbër mu ndaw yooyu yooyu. non non parce que xam nga tax. waaw eh, Prince du du du maanaam tey moo ñu booleeg moom bu muy gën a bu muy nekk booy. waaw bu muy nekk booy la lay ñëw si ñun. comprendre nga comme du tey la ñu xam comprendre nga voilà xam naa qualité am mun na daan ku dul jokkeel comprendre nga baax a baax voilà. voilà mais du combat bu ndaw si moom. combat de classement am la xam nga di ñaanal booy wana nga combat bi jëm ni yàlla may ko ndam mu nekk xale boo xamante ne man ak combat bi man ak moom ñoo ko préparé waaw bu ma si jox ay expérience boo xamante ne tamit dal na xel quoi waaw di ko ñaanal ndam di ko ñaanal bonne continuation xale la di koy ñaanal bonne continuation jërëjëf Valdo yàlla sa combat taxaw di encouragé Baye Sall waaw da doon bëre quoi tubal da doon bëre yàlla may ko di ko encouragé bu baax jërëjëf di nuyu waa Pikine yëpp waa ginnaaw raay waa Enda Enda ba di nuyu waa Enda bu baax waa Enda baax a baax a baax ñoom Guèye Sène. waaw sama mag Guèye Sène ñoom Jibi Sange. waaw mooy moom Maxaali. ñoom Maxaali. waaw ñoom Jibi Sange gars yëpp daal waa Enda rek. waa Enda yëpp Kulim Dioum waaw. Kulim Dioum Kulim Dioum. di nga leen seet si temps yii. waaw waaw naa leen fekk waa waa Arlem. ñoom Birahim naa ñoom Birahim Sane. waaw ñu nuyu ñëpp daal. d'accord waaw.